dal leen ak jàmm ci tabax am réew nekkul lu yomb du ci benn fan du ci ñaari fan président premier ministre ak seen gouvernement kenn ku ci nekk am rôle bu am solo boo ci war a jouer war ci ànd nag ak askan wi muy la population sénégalaise. loolu moo waral Ousmane Sonko ci référentiel bi bañ koy présenté ca CICAD am kaddu yu am solo yoo xam ne jot ko ko fa yëkkati nañ ko teewlu léegi mu ne askanu Sénégal lay woo ngir ñu def bloc derrière le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar fay ngir objectif yi nga xam ne moom la ñu fixé wu ñu di koy mën a atteindre Ousmane Sonko woowaat askanam Ousmane Sonko galvaniser askanam. Ousmane Sonko woo képp kuy sénégalais ngir nga bàyyi xel ne référentiel Sénégal cinquante bile nekkul mbirum benn nit ak ñaari nit comme moom président ak premier ministre nekkul itam mbirum gouvernement bi ak partenaires yi ñuy liggéeyal la képp kuy yeewoo ci réew mi rek war nga cee mën a impliqué wu ba tax na ñoom dinañ def seen kéemtalaay kattana ba imprégné sénégalais yi bu baax a baax ci boobu le référentiel la maanaam pare nañ sax ngir def ay porte à porte dugg waxtaan ak sénégalais yi xamal leen li nga xam ni moom la ñu teg sur la table ngir Sénégal fii ak atum 2050 mën a tegu sur les rails développement loolu mën naa nekk il suffit ñu am état bu fort am ay njiit yoo xam ni dañoo jub moo fi nekk muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président de la république ànd ci ak son PM Sonko mi nga xam ne moo waral bi la jàngata am ay kàddoom yi ñu bëgg daal di teewlu moom PM Ousmane Sonko woote bii la def ci askanu Sénégal ngir képp ku ko dégg xam ni li ñuy xaar nekkul lu yomb yéeme na lool te nag kenn ku ci nekk ci ñun war naa def kéemtalaay kattanam boo wooteem bile ñu mën cee wuyu si Ousmane Sonko le PM du Sénégal le président du parti PASTEF kàddu yi la yëkkati. mais li ëpp solo ci li may wax man mooy lancer un appel aux Sénégalais son excellence le président de la République dina wax ak askanam réew la koy defar mooy. am njiit yu am gis-gis te jub muy benn am gis-gis te jub te lii ñu fi exposé tey am na ko wax léegi différence bi dinañu bàyyi aux experts le soin ñu jël li fi nekkoon li ñu fi jëlee ñu comparé kook li ñu andi ñun def nañ liggéey boobu ba pare de mais c'est pas à nous de le sortir tout de suite parce que vous nous direz que subjectif mais ñu bàyyi leen ñu jël li fi newoon comparé kook li ñu andi dinañ gis li ça n'a rien muy benn am gis-gis loxoy set bu loolu amee ba noppi nag lu jiit yi baax baax baax baax te amuñu une masse critique du peuple qui comprend les enjeux et qui fait bloc derrière eux dina jafe ñu tabax kon askan wi la ñuy woo ñu def bloc derrière son excellence le président Diomaye Faye def bloc derrière le gouvernement ñu jublu ci liggéey bi brique après brique fi neñeen ñi jaar ñëpp ba egsi fii ñu egg ñoom ci tànk yooyu la ñu teg senegal fi mu toll nii doon te bëggoon nañ buñ koy door ñu fekk au moins li ma wax keroog ci conférence de presse bi fekk réew mi nekk au rez-de-chaussée ndax dañoo ñëw fekk au troisième sous foo ñu remonter pente bi waaye à un peuple déterminé rien mais absolument rien n'est impossible kon loolu mooy fi may daanale ñu ngi leen di gërëm leen sant merci. mu ngi noonu ñoo déggandoo wootewu Ousmane Sonko le premier ministre du Sénégal. ki nga xam ne tey jile bu ñu amee révolution moom moo ko war a la moo ci def ay jéego moo ci dox. moo ci wax boo ci subir ay conséquence ba may ñu tey jile bés bu mag bi ñu doon célébrer muy référentiel Sénégal 2050 bi ñu doon présenté ki ko porté lépp ci mbaaxum Ousmane Sonko di son excellence le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax bu doon moom Ousmane Sonko amul woon vision bu claire amul woon lu mu bëggal réewum Sénégal jiital ay intérêt boppam comme ni ko fi ñenn ñi defee woon konoon tey jile boo moytuwul Macky Sall laa fiy toogaat baakum fi yabal bu ko defee ñuy wéyal di toroxal sénégalais seen coono du mës a jeex yéex ñoom ñuy gën a am ay koppar di dundee alalu réew mi boole ci nag ñàkk ñoo jox cër kon nag woote bi nga xam ni le PM Ousmane Sonko def na ko ñun sénégalais yëpp ñoo ci war a wuyu ji war nañoo gën a impliqué wu gën a intéressé wu ci suñu réew ni muy doxee comme niñ ko doon defee depuis 2021 ba dañuy falee président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax boobule implication mooy tax ñëpp mën a xam ne réew mi kat révolution bi fi am yamul ci njiit yi waaye fépp rek foo dem ci loxo loolee la ñuy xaar ci képp ku yeewoo ci réewum Sénégal ndax programme bi ñu tëralal dafa inclusif maanaam bàyyiwuñ kenn amul xajj ak seen muy sàmmkat muy baykat muy nappkat wala ci looy mënti yëngoo xamal ne gars yi sóoraale nañu la bu baax a baax surtout nag ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci coin yi gën a reculé ci réewum Sénégal ci région yi ndax huit pôles yi ñu nar a jëmmal bés bu ñu ko defee ba mu sotti dina wàññi exode rural bi ñu naan jóge ci àll ba di ñëw ci capital bi ñu fi doon ut si dinañ ko gis ci seeni ay dëkk boobaa day mën a tax ñu génn ci li nga xam ni moo di injustice sociale bi ñuy dund ci réewum Sénégal ku dugg ci àll bi ci coin yu gën a reculé yi maanaam fi gën a sori di nga xam ni li xew Dakar ak yeneen villes yi xewul fépp kon nag niveau de vie des Sénégalais war nañ koo mën a daal di gën a yéegal waaye boobu day fekk itam ñun askan wi ñu impliqué wu ci liggéey bi lépp rek luñ leen mën a jàppalee nañu ko def te buñ ci hésité nañu ci boole itam campagne de sensibilisation ngir askan wi mën a xam lan moo xew ci réew mi ñii nan lañu fas yéene liggéeyee ak yoon la ñu nar a jaar loolu bu ñu ko defee ndam lu rëy dinañ ko am suñu réew mi di Sénégal dinañ dama dem bay concurrence yenn réew yu am doole yi lépp nag liggéey moo koy mayee gëm sa muy souveraineté boo ko defee boole kook liggéey bu ànd ak jub-jubal ak jubbanti li Ousmane Sonko di wax di nga ca nekk lu di mel lim lay jural mooy réew mu naat réew mu soppeeku réew moo xam ne képp ku fi yeewoo da ngay nekk ci noflaay kon gars yi message baa ngi noonu nañu jàppale président Bassirou Diomaye Diakhar mérité nañu ko soxla nañu ko xeexandoo nañ ak ñoom ba yegg si fii kon tey jii lañ leen war a gën a mën a jàppale tey jii lañ leen war a gën a mën a teg loxo tey lañ war a gën a ànd ak ñoom ngir xool jafe-jafe yi ñu dund ci réew mi naka lañ ciy génnee gars yi nañu conscient des enjeux nañu xam bu baax li nga xam ne moo nekk ci suñu kanam bu ñu fàttee benn yoon ni dañoo juge ci lu méttee métti bu ñu fàtte benn yoon ni dañoo juge ci xeex ak régime bu fi nekkoon doon ñu dóor doon ñu saaga doon ñu toroxal di lekk itam suñu ay koppar te mënuñ ci woon lenn ñooñu am ñaawteef yu bëri yu ñu def ci réew mi crime économique crime de sang ak yeneen yoo xam ne tey jii buñ ko doon lim du ñu fi jugee ñooñu ñu xeexal dóorante ak ñoom gañe leen am ci victoire bu mucc ayib war ñu leen bàyyi benn yoon ñu jéem a yàq projet bile kon Ousmane Sonko li mu wootee dañ cee war a ànd ak moom ndax li ñu doon xeex xeex nañ ko ba noppi mooy jëlee fi gaay yi benn mbir moo ci des mooy kóobu mujj bi ñu war a jël la ngir définitivement ñoom ñu bañ a dugguti ci mbirum politique xam ne askan wi da leen a suur askan wi da leen a gedd loolu mooy lan bésub 17 novembre 17 novembre yi ñu dëgmal mooy bés bi nga xam ne ñoo ko moom comme ni ñu mooyee woon bésub 24 mars 2024 bés boobu dañ doon dindi bopp système bi ak ñenn ci ñi mu àndal système bi mi ngi fi ba tey de faw rek ñu raxas ko ba mu set wecc bala 17 novembre ñu jox majorité écrasante au président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon lépp loo xam ni war nañ koo mën a def nañ ci avancer sans pour autant ñuy inquiété wu baa ñuy am souci nañu gëm suñu bopp te xam ne Sénégal jii kat mën nañ koo réussir mën nañ koo soppi et c'est bien possible. kon mu ngi noonu jàppale président ak PM dong moo fi des ñu ay xeex ñu xuloo ñu saagante ñu waxante lu ñaaw lenn mooy suñu yitte mooy système bi na fi jóge ba faw ñu teg ay politique de développement yu bees sénégalais yëpp mën cee gis seen bopp approprié wu ko ñu tasaare ko fépp nag ba Sénégal gi yëpp mën cee jot kon gars yi mbir mi mi ngi noonu ñu ko fàttee le 17 novembre 2024 focus rek focus dong ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal ñu joxante di dajee beneen yoon ci beneen jàngata jaa ngeen jëf AGT News